waaw salaamaaleykum yéen a ngi koy gis ni ki nga xamante ni mooy président de la république Macky Sall mi ngi doog di jugee ci jumaa ji ginnaaw ba mu jullee ajuma euh, ànd ak ki nga xamante ni mooy Serigne Bass Abdou Khadre mi ngi nii di dem fa nga xamante ni mooy résidence ba nga xamante fa lañ ko dalal euh, tey ji ci ajuma gi euh, war di nekk fii ba li nga xamante ni mooy màggal gi donc gis ngeen convoi mi ngi nii di soog a jugee fi nga xamante ni mooy jumaa ji ginnaaw ba mu jullee daal dem ci bërëb sëñ bu mag bi daal di def ay ñaanam daal di dem fa nga xamante ni mooy résidence Cheikhoul Khadim donc ngeen euh, wéy duñu topp ci li nga xamante ni mooy seen euh, chaîne télévision euh, bu Tawfekh Production ci wàccaay màggal bi nga xamante ni mooy édition 2018 jaa ngeen waaw sëñ bi yaa ngi si chaîne bu Tawfekh Production mhm. lan nga ñu mën a xamal ci ni gisee dëkk bi ci ni ñëwee ñëw di màggal fii ci biir Touba ah alhamdulilah di santaat sëriñ bi bu baax rek ah di leen bu baax di leen siyaare di leen baalaax bu baax leen baalaax leen wax daleen ak jàmm dëkk bi ah dëkk bi moom moom nii rek li moom du fi gan ndax sëriñ moom Ah, tey tey jii day gàcceel démbam rek waaw ñu santaat bu baax sëriñ bi rek di waxaat gaa yi nañ gën a yokkaat laxasaay rek sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa moom nii la moom waaw waaw man suñu borom dogal na fii laa dëkk na man fii laa dëkk waaw maa ngi dëkkee ndaamaatu waaye maa ngi dalal ay ganit wax dëgg yàlla waaw waaw sama yaay tur bi naka la tur bi laa tudd ah, nan nga gisee dëkk bi si ah dëkk bi de man maa ngi fu yéen ci fajar laa fi egg si wax dëgg yàlla egg sama dal summeeku ñëw ay 11h laa fi ñëw pour julli si. waaw jumaa ji rek moom a tey tey moom da ma woon àjjuma ji raw moom dëgg yàlla. moo tax ñëw ah mbooloo yi bari nañ lool lool tabar fakkaal la lii yëpp xéwal sëñ Touba gi rek xéwal sëñ Touba gi rek ñun waa Cambérène lañ ay laayeen lañ maa sama doom bi manjoon la tudd waaye dañoo ñëw ci ci xéwal sëñ Touba gi siyaar si dugg ci suñu dal yi dallu pare tàggoo ñibbi. jërëjëf ñaata astrem nga ñëw di màggal. ah ñaata astrem nga ñëw yàgg na 78 ba tey maa ngi màggal si man sama papa murit la dama sëy ca laayeen waaye sama papa murit la 78 booba xale laa maa ngi màggal si ba tey. bi tur bi la Mounir Sarr. ah Mounirou Sarr Mounirou Sarr waaw Mounirou Sarr euh, ba dëkk nga jógee ñëw di ji maa ngi jógee Dakar Dakar nga jógee waaw kañ nga ñëw man accident bi ci guddi ci guddi nga fay waaw accident bi ci guddi waaw ba nga egsee naka nga bi ci mbooloo mi ñëwee di wax dëgg yàlla xanaa di ci kontaan rek di ci kontaan wax dëgg yàlla ndax bañu agsee moom gis nañ ni ñu accueillir ak ni ñu ganale wax dëgg yàlla loolu moo ñu ciy sant baax di ci sant sëñ bi xam lépp nag ci xewlu sëñ bi la wax dëgg yàlla waaye ñu sant baax waaye nag ñi ngi sant wax dëgg yàlla ci yoon bañ fa accès amuñu benn problème ndax parce que cinq heures temps lañ wax dëgg yàlla loolu moom am nañ ci contentement baax trop wax dëgg yàlla nga am ci loolu waaw loolu moom di ci wax dëgg yàlla te di ci gën a ñaax mbokki taalibe rek ko accès nga xam li la tax a jóg loolu wax dëgg yàlla moo ci am solo moom boo accès daal fekkee fee nga dëkk moom li ci gën mooy nga bàyyee gan ñi siyaar man loolu laa ci gis mu gën rafet